wootee kon nag wuy ji ku jóg wuy ji. asalaamualeykum mbokki jullit yi ak mbokki taalibe yi. ndigal jóge na ci sëñ Cheikh Ahmed Tidiane si al maktoum xalif général des Tidiane wàcc ci sëñ Abdazi al Amin porte parole famille Seydi Aj Malick si. ak sëñ Mbaye si Mansour sëriñ Sidi Ahmed si Babacar sëriñ Maodo si Dabbaax sëriñ Pape Malick si sëriñ Mame Ousmane si Habib sëriñ Mansour si Jamil ak mbooleemu njabootu Seydi Aj Malick si. na woote kon nag wuy ji leen ci kilifteefu Serigne Cheikh Tidiane Sy ibnu Serigne Mansour comité national préparatoire pour l'hommage à Serigne Mansour Sy ñoo lëkkaloo ak daayira Moutadibine di li woo ci bëccëg boo xam dañ koo jagleel Serigne Mouhamadou Mansour si borom daara ji dimanche lay doon 30 mars 2014 bu 9h jotee ca Tivaouane programme bi nag nii lay tëddee 10 nan fa amal exposition ak waxtaan wuyaatu ci dund ak jàngale Serigne Mansour gannaaw san nan fa amal cérémonie officielle ziara daara ji bi ëmb bépp imaam ak boroom xam-xam bu génne ci daara Serigne Mansour mbokk yi bis baa ngi noonu journée d'hommage à Serigne Mansour si borom daara yi dimanche 30 mars 2014 à partir de 9 ci Tivaouane ñi ngi woo bépp këru diine ak bépp taalibe salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu دراسته أتاه ختم من الرحمن والجاه